asalaamaaleykum mbokk yi tey nag damay ñëw di wax sama xalaat ci li xew Tunisie parce que fan yi li fi xew Tunisie coow li dafa bari man may gis ni li fa xew xëy na dañ koy dañ koy doon a institutionnaliser mais li fa xew yàgg na fa Tunisie ñu fay jaar ñëpp xam ne dëkk bi gën a Tunisie ci la bokk. Tunisie même bu dul nit ñi fay jaar Tunisie man jot naa ay yoon yoon ay boy yu fa ne mais buñ lay jooytu la fa ne. fu la jàppee dañuy daw ay kilomètres yu bari neen ci àll bi door la fay sànni yu mel di wax métti yu bari yoo xam mi ci Tunisie yu bari nag yu baree bari mais man li may jaaxal rek mooy te ma koy wax ña fa nekk yéen immigré yi dund Tunisie ñeen ñëpp laa wax moo xam étudiant nga moo xam ouvrier nga moo xam loo mun a doon gis nga nit ki responsabilité moo koy jël am na loo xam bu ci xaar état parce que boo ci xaaree état da nga ko ci yéex a gis ndax li tax ma wax leen ko mooy man dama jaaxle daal parce que man démb laay bërki démb laay gis benn note boo xam te ni ambassade d'Italie ci boppam ambassade Sénégal bi nekk Italie moo ko yónnee mais man ma ni ambassade Tunisie ambassade Sénégal bi nekk Tunisie moom lan mooy liggéeyam moom lan mooy problème man gis naa ne ambassade yëpp yëpp ba ci bu Mali liir naa seen communiqué yu ci bari ambassade yu bari liir naa seen ay communiqué ñu ngi xool seen ressortissants yi nan la ñuy dundee nan la ñuy def mais ñun jotuñu julul te kenn alerté wuñu ci Tunisie dund ga xeex bi ñuy xeex ni ñu ñuul ñi man bi ma koy njëkk a gis ci benn ñag laa gis ci TikTok bi muy lire lettre bi nga xamante ni si président de la république bu bees bu Tunisie bi moom moo ko bind. te gis nga média wu Sénégal ñu ci bari ci ñoom dañu ñuy réeral ndax dañuy invité ci plateau ñoo xam maîtriser wuñ dara ca la ñuy wax. te dafa mel ne ñoom médiocrité daf leen di neex daal dafa mel ne ñoom bu ñuy invité dañuy bëgg koo xam ne xamul dara ca la muy wax. dégg nga benn débat mais ña fa toog ñoom au que ñu wax parce que dafa am loo xam bu xewee. problème national dootul problème mu APR dootul problème mu Pastef dootul problème mu LDMP dootul problème mu kenn problème mu loo xam ne ñun Sénégal gépp ñoo ko bokk ñoon lay laal ndax képp koo immigré bu ngeen demee Tunisie am na fa ñu far ak Macky Sall am na ñu far ak Sonko ñun ñii tamit di seeni mbokk nekk ci biir réew mi am fu ñu far ñoom ñoo ñeet suñu mbokk lañ te ña nga foofee kon nag bu xewee te problème bu taxawee rek parti dootul amati mais patrie mooy am nation mooy am état mooy am. mais dootul nek damay défendre ils ont ci ñoo xam naan diplomatie ci suuf lañ koy diplomatie waxuma diplomatie diplomatie ci suuf lañ koy def ay wax la koy mën japp diplomatie xam nañ lan la. diplomatie ay coopération la diplomatie ay discussion mais lool mënul nek ci suuf ay public lay doon parce que amna yo xam Sénégal fi dafa am yo xam mais su ngeen bu Europe ngeen xam amatul gis secret d'état top secret ay eh, gis nga yu mel non, Sénégal yéen yéen a ko dese mais dans les pays développés dans les pays démocratiques population bi ñoy état lu xew dañ leen koy wax dañ leen naan li mo xew ci li lii mooy xew ci li man tay budget Italie sax suma ko bëggoon xam boo duggee seen surtout gouvernement li dañ lay wax ñaata la wax la ñan ñoko ko lan mo ci génne lu ci dem yeb dañ la koy wax. chaque ministère soo ñëwee Sénégal ñoo la ay rapport bi amul tampon rapport bi amul leeg rapport bi top secret rapport bi dina wax ay détails yu xam ne si do comprendre lan la quoi parce que lan mooy état. état mooy ñun ñun population bi ñii ci ministre ñun ñoo leen di liggéeyloo nit ki nag ki koy liggéeyloo war dafay rendre compte parce que droit d'information nit bu nekk ci àdduna bi am nga ko dañ la war a wax lan lañ yore parce que ñoo ko bokk budget bi ñuy joxe yi ñun suñu xaalis la même buñ ko lebee suñu lañ koy lebee kon donc dañu war a xam lan la mais kon diplomatie yooyu ñu ci wax amu ci mais man sama diplomate Sénégal yi dégguma ko ci génn man du ma wax sax parce que lii du problème Sénégal lii problème Afrique la problème Afrique noire Afrique noire, saharienne, subsaharienne du subsaharienne parce que subsaharienne vous ñu koy wax pour mot mais mot du pas le mot le mot boo ko racisme le racisme le mot noir qui dérange il y ay Afrique subsaharienne saharienne, Afrique noire ce sont les noirs qui dérangent Tunisie président de wax manam ñu ñuul ña bari fa te xam ngeen Tunisie ñaat lañ est ce que duñu ay 17 millions habitants xawma ma démb lire naa quelque part dal mais 20 000 imi 20 000 noirs fa ne la fa ne ñëpp buñ doon sey kenn koy tak ñent jabar sax taxul population ba jaxasoo mais président de la république mo wax lool ki wax lool mo institutionnaliser racisme suñu institutionnaliser racisme nag kooku ci défendre kenn ku fa nekk nit ku ñuul da ngay am problème légui yeen nit ñu lan ngeen fay def xëy bon la may wax chaque jour kenn ko la tax mu tukki nak moo xam mais dal man fu may tukki fa ne day fekk ma mën faa dund nekk fa ci jàmm te man su ngeen ma waxee ni ma Tunisie dafa am koom moo tax ngeen dem wala que gis nga gaal yi gaal yi ni fii Sénégal di dem Europe noonu la Tunisiens di jëlee gaal di dem Italie chaque jour Italie ñaata gaal yi ñëw su ñëwee Tunisiens yi kenn du xam di dugg gaal laa wax de xaru pour dem pour am xaalis pour dund kon léegi man seen dëkk yi man xaw ma lan def ba war fa nekk ñu koy rey kat métital xëy na dañ may wax naa am ay étudiants moo fa man gisuma fu Tunisie toj ci étude man gisuma benn universitaire bu mag wala benn borom xam-xam mag bu ñu wax naa ma tunisien la man gisuma ko xaw ma ko man laa xaw ma ko de xëy na am na mais man xaw ma ko comme Égypte ni ngeen mën a waxee tant de savant yoo xam ne Égypte lañ ma seen savant xaw ma kenn ku ñu ma ko mos a toj fenn dëkk Tunisie kon ana njàng bu ñu fay jàng bu ñu mën a jàng feneen ñaata tunisien yoo fay jógee ñëw université Dakar gii di fi jàng ñaata mais kon amuñu ñoom lu nit ñi amul beneen bi ci des compagnie air Tunis man voyagé naa ko ñaari yoon benn man sam bopp maa wàcc yàlla ni Tunis boo jar fukki dërëm du ma ko jël da ngay wàcc Tunis ñu lay sonal sonal goo xam ni sa séjour dañuy jëyee photo bi sax naan la ak yow photo boo xam départ Sénégal bëgg a jëm Europe seen yoon nekku ci man loolu moo ma jotale woon seen ay policier ba ay nit ma dañ lay rey gi kenn xamul wax fa ay wax yu doy waar yu may expliqué mais man ragalu ma tiitu mais man sama droit fu mu ne na la waatee Tunis ma fa jaarate ñiy jël Air lan la Air Tunisie bokkul sax ci léeg-léeg ñu def seen promotion parce que bu ñu demee a daanu ndax def promotion bu ñuy def promotion c'est pas pour les vous les noirs nit ki dafay am jom ngor man boo ma buggul bugguma la man soo ma buggul bugguma la man je suis extrêmement ouvert damay làkk arab bu baax a baax naar bu ma gis damay làkkante ak ñoom arab li nit ñi naa moytu leen naa man du ma ci fekk man damay waxtaan ak naar yi lu bari mais tunisien je les ak ñoom man su ma na min ay na jiita boo ma ne Tunis ma bara ci yow du ma mais quest la bëggul bu ko bañ bu ko bëgg dama leen la parce que en général ndax man ko bañ la suis généraliser parce que ñun dañu dund racisme bokku ci ñi daan racisme Italie bokku ci mouvement yu bari yu racisme kon xamna que moy racisme ba motax bëgguma généraliser bëgguma wax tunisien ay raciste lañ mais dafa am marocain lu ma l'a dafa man yeen sénégalais dañu bax marocain yi bon ma non loolu amul parce que état a ñi de bon ñafa dëkk dafa am ñu fa am ñu mënu non li société majorité sénégalais dañu ragal yalla dañuy julli dañuy moy xam nañ diine daal mais majorité marocain yi xamuñu diine duñ ko def donc lool il m'a convaincu donc man buma waxé Tunisie dañuy raciste foofu la yor bu majorité Tunisie raciste ba président ba di am courage bu dayné ne noir yi nañ leen leen génne nañ leen leen xeex naan noir yi dañ leen fay pour ñu jur fa pour ñu pour ñu jaxasoo Tunisiens pour mëna a jur racisme gu bon go xool retard googu mais kon donc ñun Sénégal ñun africains ñun noir yi ñoo war xolat suñu bop xamni ni c'est un raciste

ñun suñu bop du ñu pugul suñu bop ben instant suma ko waxee nag ngeen bal ma waxuma ñëpp ñi ci bari la wax ñun immigré nak mo gëna tax may wax gis nga immigré gis na fi ben mu sax ko xam dama ko xam mom mom mom mom mom lan sax ben chaîne télé damay fatali te turam ndaysan mi ngi ci man parce que mais suma ma ñi ma xam dañ ko xam ku melni abdallah sar ñoo ñooñu gis na dañ ko defan bu baax. man Abdoulaye Sarr moom nit la ko xam dama koy sañ a tudd parce que kuy défendre immigré yi ku bëgg immigré yi ku bëgg diaspora bi kuy défendre diaspora bi euh, ba tax na man ku ma gis mu faral ko wala mu xaw a jege ak man damay am yaakaar ci moom gis nga kooku bi mu fi ñëwee def na fi njëkk na fi indi ay vol commencé di jaay billet macha allah muy dem mais sénégalais yi ni yàq daram yàq goo xam doo comprendre mu dem bañ fexee fexe ba vol boobu presque amatul mu génn fi jógee ñëw indi beneen vol. waaye tur waroon naa fàttali ko ay am na chaîne télévision te ni ñu def rayante ba am ko yooyu yëpp ndeysaan yooyu yëpp pour bëgg Sénégal pour rayante pour diaspora am dara ba li am pouvoir yi am sens yi tubaab yi am ñu la moo ñu ñëwee di saboté Aline def naa tudd wax damay fàtte ndeysaan mais moom mu rayante indi fi vol di jaay bee yu yomb mais Sénégal xam na lañ def kooku boo ko jëlee day tardé kooku sa waay bu réeré see bagage doo fayu kooku de jaay na ma bee waaye ba léegi bee bi demuma fayu ma commencé di ko yàqal di ko yàqal ba mu sonn ba moom vol boobu mujj arrêté mu dem indiwaat deuxième vol gis nga deuxième vol bet problème boobu moo ci amaat parce que Sénégal xam la mooy seen problème taman li may dox en connaissance de chose dama ko dund gis Sénégal da ngeen di dimbali yéene leen lu baax di leen yërëm mais gis nga ñoom seen bopp am na fa fukki nit yoo xam lan la ñuy wax boo jëmee ci kooku yii sa waaye du la defal lu baax de kooku kooku jubul kooku dafa dëng ba yow boo fay def esprit boobu ngay amee ba kooku bu juumte amee ci moom wala mu rëcc dara wala fukki dërëm rëcc ci moom sax ngaan moo ko tey def ko ay daf koo def exprès gis na waajooju loolu moo ko dal ay vol bu pas tardé vol bu demul mais moom lan la ci mën noonu non non mais jiñ nañ ay nit ni jiwul ba ña demoon ñëpp jàpp nañ ni moom moo ko def te moom génn na ku fi réer sama faute la maa ko def ndeysaan di gàddu responsable pour assurer benn responsabilité boo xam ne sax mi ngi koy am nit ñu am mentalité jëm kanam mais loolu dafa Europe ñun du ñu fa tardel Europe xeet yi fa ëpp xaalis surtout fu mel ne Italie tey lu fa nit di def ci Sénégalais la ko doon lu fa nit di def ci Sénégalais la ko gisee mais tey ji boo fa demee yow Sénégalais pour nga avance mënul ne te sa bopp yow du benn xeet bu ñu sonal nag ñun ñun sénégalais entre ñun ñoo sonal suñu bopp bitigu sénégal man ubbi naa fa benn benn benn service di ko fa def billaay wallaay taal fukki client yi maam ñeent yëpp c'est des étrangers dem nañ ba ñooñu sax dañu ma doon yàqal jaxaseeg ñoom ci bu sori ñëw ba ci yow dugal xaalis ak yëpp am na ñoo xam seen làmmiñ lañ yor sénégal gi dañ fi ñëw sa naan ci moom laa dugal xaalis te du benn dëgg mosuma leen gis mosuma leen xam rien pour di la xeex yow nanguwuñ nga jëm kanam parce man il dëkk ba ma ne la ma fa def maa fa njëkk def benn Sénégal sax osé wul woon pour def fa mais non duñ la bàyyi nga dem waa ji tamit eh, kii waay waay lu tax nga mën a war fàtt turam bi li may wax ni moo xaw a doy wax mais kooku noonu ci boppam lu ne rayante la pour Sénégal am compagnie wala Modou yi am compagnie yoo xam daan ci mën a voyager mu leen seen làmmiñ yi lañu téye di kenn dootu la ñeme kenn dootu defat la ngay def su ko fi a doon nag te nit ki fenn fu ne mu dem fa di wax te nit ki jëm ci yow di wut si dara nga ne ko dafa njublan bu demee loo jum wala lu ci rate wala bu moyen sax ñu ni mooma te kookaat il y que mu am courage bu day ne ne ah dafa juum déedéet day damay wax ci jom sa waay ji da la ñun Sénégal ñu xaw a doy waar loolu moo fay suñu problème gis nga Sénégal yàgg nañ fa sonn mais amuñu te te <laughs> sax la mooy wax te du ma mos a denc di ko wax mooy erreur bi gën a mag député yi ñuy jëlali ci parti politique yi lan moo ko waral parti politique nee leen ça représente presque rien en Italie ça association yi fay dimbali nit ñi Europe gépp laa leen Europe gépp diaspora bi association yi fay dimbali nit ñi xamuñu sax luy parti politique xamuñu sax ndax parti politique am na ña bokk ci politique bu ñu matee ci diaspora bi matuñu 1 pour cent ñu jël ay diplôme jox leen ñooñu di politique xamuñu sax la mooy suñuy problème ak suñuy affaire te pourtant y a des présidents association yoo xamante ni si

parce que waa OIM e ñoo ko def maanaam dëkk boo mën a ne surtout yéen ñi ci bëgg a ñibbi Sénégal définitivement am na fa programme boo xam ci préfecture yi ko basé naa ci gën a parce que waa Mali bi ñu ko waxee laa fàttaliku yéen ñi ne Tunisie aussi dem parce que ñooñu waa e organisation internationale de migration ñoom ñoo ko indi manam ñi voyager woon bëgg ñibbiwaat seen dëkk dañ leen di assister manam dañ leen jëndal biir dañ leen di préparer li ñuy voyage ba paré tam bo ñibé sa dëkk dafa am projet bo xam te ne si boo ko dañ koy financer manam lu la jox xaalis na mais da ngay dem ci par exemple nga jël benn magasin dem duy ko boutique bam fess so soo ñëwee ñu wax nangam ñu financer lako ko na ci gëna a ñëw naa gën a mais yeen ñi na Tunisie aussi tamit loolu am ngeen ko am ngeen ko parce que man xawma non Tunisie ci la bok mais après bi ko Mali waxee la dem du xol mais gis na Tunisie aussi tamit xam naa ci lay wara bok parce que wa Mali ñom lolu lañ wax seen seen ki seen nit yi yéen ñun Sénégal malheureusement bon kenn mënul wax lépp parce que comme nee naan ko wax ñu tëj la moo tax man moom damay am fu may yem daal te ñu bari dañ may gis ngeen gën ngeen ma wax parce que ñu bari dañ may topp naa ma man a xam man faruma tamit diasporaen la ba pare tamit expert en immigration moo tax lépp lu laal immigration dama ciy wax mais Sénégal duñ may jàmm daal <laughs> donc suñu réew ñun ñu waroon jàppale ba ñu mën a xam yooyu peut-être que amul wala boo xëy na tamit li ma wax la mooy Sénégal à l'extérieur man xaw ma ministre de Sénégal à l'extérieur ña fa ne xaw ma ñan la mais leerama lu ñu ay moodu moodu leerama tukkiwul ko maîtriser wul xamoo ko mënoo caa moo tax nag dem OIM bi naa ci ñëw incha allah gën ko tas bu soobee yàlla euh, di wax rek yéen ñi ne Tunis bu leen ko bëgg te gis nga nit ku ñuul dafa yomba xeex parce dund doomu aadama lu mu metti metti sàmm bakkanam moo gën te Sénégal gii mooy li ma leen di wax chaque jour force force force ak ku mën a yéeg day changé parce que ressources ci àdduna bi yëpp am nañ ko lépp luy maye xaalis pétrole or diamant zircon phosphate lépp luy maye xaalis ñun am nañ ko gaz lépp luy maye xaalis ñun am nañ ko donc Sénégal après 2024 force dafay dox moo tax jarul xaaru jarul rey seen bopp jarul xaru jarul rey seen bopp Sénégal force force 2024 day changé xam naa ne am na ñoo mënuñu ko gëm mais force la dafa am yenn xaalis ñu doy doy waat force waa réew wala Sénégal force d'échange bu leen xaru fenn muñ leen tuuti suñu suñu man pour man suñu jamono toog tëgg na moo tax bu leen rey seen bopp a jaru ko fi jógee leen Tunisie Maroc ak fu ngeen mën a dem baax malgré que naar yi moom na ma yàlla baal di jégal ma ci wax ji ci wax ji parce que arab laa jàng na may wax ak ñoom lu bëree bëri mais na ma yàlla baal jégal ma ci wax ji wax ji ñoom gënuñu wasalaamaaleykum wa rahmatulah